أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا ixwat al iman assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu ñu ngi delluwaat ak yéen ci sunu téere bu tedd bu màgg bi di al usulu salaasa tey ñuy ñuy jël dars al adilla ndax boroom téere bi daf ñoo jàngal ne أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل الأولى الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة الدين الإسلامي بالأدلة borom téere bi mu nañu li ñu njëkk a war a xam te mu war ci sunu kaw ñu xam ko ñeenti mbir la bi ci njëkk mooy xam-xam ñaareel bi mooy xam yonent bi ñetteel bi xam diine lislaam waaye nag bil adillati lan mooy xam-xam mooy maarifatullah xam yàlla ba mooy bi njëkk al ilmu mooy maarifatullah soo xamee yàlla ba pare nga xam yonent bi soo xamee yonent bi koo ciy teg diin al islaam waaye nag xam-xam yi yëpp noo koy xamee ndax da ngay tëdd di nelaw rek gént yeew ne dañ maa sol wala biig dem naa ci yàlla dem naa arsh dem naa kursiyu wër naa asamaan yi dem naa ci biir géej gi dugg naa ci montagne yi ah déedéet loolu dafa yomb de boo bëggee xam yàlla léegi tey xam nga li xew ci àddina bi mooy xam yàlla nga dégg xam yàlla gis yàlla waaw yàlla boo ko bëggee xam dangay jàng ala ilmu ba pare bil adilla dañ la koy tegtal day am ay dalil yu wóor yu ne keng yu lay woon yàlla ad dalil ad dalil mooy tegtal lu lay woon yàlla dalil yooyu laa bi taqlid nekkul looy toppandoo yàlla xamam xam-xamam kenn du ko toppandoo kenn du ko for kenn du ko gént kenn du ko sol mënuñu la koo sol wa innama bil adillati min al qurani wa min as sunna mbokk yi pour ñu xam yàlla fan la ñuy dem pour ñu xam yàlla ci al quran fan la ñuy dem pour ñu xam yàlla ci sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñaar yi ñoo ñuy woon yàlla wa min as sunnati mu ne haza huwa al ilmu lii mooy xam-xam xam-xam mooy yàlla nee na yonent bi nee na sëriñ bu tudd ibnul qayim nee na ci téereem bu tudd alkaafiya alshaafiya nee na al ilmu qaala allahu qaala rasuluhu qaala sahaabatu hum ula al irfaani ma al ilmu nasiibuka lil xilaafi shafaahatan bayna arrasuli wa bayna ra'yil fulaani sëriñ bi nee na xam-xam daal boo ko bëggee xam mooy yàlla nee na ku lay wax xam-xam na la ne yàlla nee na tey ngay gis boroom xam-xam buy wax ci diine wax suba ba ngoon du la du ne yàlla nee na waaw saamaam sàmba moodu yero paate ibra ngóor jigaan rek la lay wax du la ne yàlla nee na qaala allah qaala rasul qaala sahaaba ñett yi du la jox benn du la ne yàlla nee na du la ne yonent bi nee na du la ne sahaaba yi nee nañ lu mu lay wax ngóor nee na jigaan nee na sàmba nee na demba nee na muudu nee na sama maam nee na rek loolu nag du xam-xam xam-xam képp ku la ne yàlla nee na déglul képp ku la ne yonent bi nee na déglul képp ku la ne sahaaba yi nee na déglul loolooy diine leneen lu dul loolu du diine bul nax sa bopp rajo boo ubbi mu ne yàlla ne yonent ne sahaaba yi ne déglul rajo boo ubbi mu naan demba nee na moodu nee na tëjal ndax demba ak moodu kenn yónniwu leen demba ak moodu binduñu yàlla bind yàlla bind tànn yónni ba pare nañu de déglu leen ki ma yónni kon ibnul qayim nee na xam-xam al ilmu qaala allah qaala rasul qaala alsahaaba xam-xam mooy yàlla nee na xam-xam mooy yonent bi nee na xam-xam mooy sahaaba yi nee nañ ginnaaw lii ndax ñii ñooy ñi xam mu ne hum ulul urfaani mu ne mal ilmu nasibuka lil xilaafi shafaahatan doy na rek nga am xam-xam xam-xam bu dof xam-xam boo xam du la jëriñ ngay ngay ngay tàqale li yonent bi wax ak keneen bu mu wax mu ne yow dof nga ñu ne la yonent bi nee na nga naan waaye sëriñ bi nee na wala nga Moodu nee na ñu ne la yonent nee na nga naan Samba nee na yonent ngay tëkkale ak Samba est-ce que yow normal nga mbokk yi haza huwa al ilmu lii mooy xam-xam al ilmu huwa ilmu al kitaabi wa sunna xam-xam mooy xam-xamu téere alquran ak sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam amma qawlul ulama yi bu fekkee waxu borom xam-xam yi nag fa hiya tashrahu wa tuwaddihu waxu borom xam-xam yi lan lañ koy jële duñ koy doye dafay firi dafay leer leeral yàlla daf ñuy wax dara duñ ko mun a comprendre duñ ko mun a dégg benn borom xam-xam daan ñu koy leeralal daan ñu koy firil kon loolu la ñuy doyee waxu borom xam-xam yi mooy pour ñu firil ñu ko pour ñu leeral ñu ko pour ñu xamal ñu ko nan lañ koy defee waxu yàlla bi naka lañ koy déggee tashrahu wa tuwaddih faqat kalaamullahi wa kalaamu rasulillah borom xam-xam yi lan lañu war a firi waxu yàlla lan lañu war a firi waxu yonent bi waaye di firi seeni waxu bopp seeni waxi maam ak seeni waxi pap loolu moom jaaduwul nga woo nit ñi ñëw ole nga leen yàlla nee na nga ne sama papa nee na tool bi ku ko bay dugg àjjana sama maam nee na fas wi ku ko sang dugg àjjana ah loolu say mbiri bopp la xam nga loolu sa intérêt la ndax tool bi ko moom fas bi ko moom est-ce que yàllaa ko moom ah kon nag nañu xool mbokk yi nañuy déglu nañuy déglu bu baax nañu toxoñ suñu bët yi ubbi suñu nopp yi xool ana lan la yàlla wax ana lan la yonent bi wax ndax loolooy dëgg leneen lu dul loolu neen la mbokk yi suñu buggee wa qad yakunu fiha awfa baadiha yenn saay sëriñ bi nee na wa qad yakunu dana nekk fiha ci loolu mu la wax aw fii baadiha walla ci yenn ci xata njuumte waaw wal adillatu nag laysa kalaamu al ulama wa innama al adillatu hiya al ayat al quraniya wal xadis annabawiya yenn saa yi borom xam-xam yi daal lay wax yu ci ëpp ëpp ëpp wala lenn ci yooyu am ay xata ay njuumte borom xam-xam bi ne la bul julli yow gis nga wax na la dëgg bul woor dina joxe ndogu màkka jarta dem defal lu la neex dinaa dugal aljana naanal sàngara balaa muy egg sa put ma soppi ko ma yow tuxal yàmbaa cuuraay màkk la loolu xam nga ki la ko wax dalay nax ki la ne defal lu la neex ëllëg yow man xiyaam maa lay ram mu dalay nax xam nga loolu njuumte la loolu du dëgg léegi nag comme yenn saa yi waxu borom xam-xam yi day am njuumte wala yenn yi am njuumte al adilla dalil bi nga mun a am dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ne borom xam-xam bi wax na la lu jub wala waxu lu jub wa innama al adilla min ayati al quran ci alquran rek nga mun a dem nga déglu li la waa ji wax waaw nga xam ndax wax na dëgg wala waxu la dëgg ndax dalay nax wala naxu la bàyyil julli ma ne ko xaaral ma ubbi alxuraan mu ubbi gis yàlla ne ma aqimi salaa ma ne ko ah ah sëñ bi yàlla dane ma julli de mu ne la bul war joxal ndox nga ne ko yàlla nee na kutiba aleykum siyaam màkka jarte dem nga ne ko yàlla nee na walillahi ala nnaas xijjul bayt naanaan sàngara nga ne ko innama alxamru wal maysir boo amee ay dalil doo sonn waaye boo amul dalil boo jàngul nga nekk silmaxa nga nekk gumba nga nekk ku tëx ñu yàlla naan summun bukkumun umyun ñetti yoon nga nekk ci reyal ko dañ lay fawe daf la morso fabeere morso fabeere lan lay doyee waaw ab julit day xam diineem ab julit day ànd ak xelam kenn du ko nax ñaata nit ngeen gis tey ñu nax leen ñaata nit ñaata waxuma ñu liggéeyal seen baay waxuma ñu liggéeyal seen wéyjur waxuma ñu liggéeyal seen bopp waaye keneen la ñuy liggéeyal duñ jëriñ sax seen bopp dof nekk ay fas yi ñu tàggat kese kon nañu leer na mbir mi leer ci ñun mbokk yi innamal adilla bu fekkee dañoo bëgg dalil lu leer mooy lan alquran wal hadis النبوي وأما كلام العلماء فهو شارح وموضح ومبين لذلك لا أنه دليل في نفسه dañoo bëgg dalil dangaa bëgg dalil del ubbi alquran del ubbi sunna amma waxu borom xam-xam yi nag du dalil waaye day leeral day firi day leeral day firi dalay wan lan la yàlla wax yàlla nee na julli leen yonent bi ne la jullikat nangam ak nangam la xamoo déggoo la yonent bi wax la yàlla li mu wax borom xam-xam bi ñëw ne la nii la nii la ñuy jullee nii la ñuy woore nii la ñuy joxe azak nii lañ koy defee aha loolu la li ñu doyee waxu borom xam-xam yi waaye waxu borom xam-xam kese kese kese kese kese du dalil yow lu tax doo julli nga ne sëñ bi nee na bu ma julli fu mu ko wax nga ne ah moom moom mu ko wax moom daf maa woo ba ci biir néegam mu ne wàcce naa la liggéey noppal naa la léegi mun ngaa bàyyi julli kooku xam du dalil man kat damaa seeti woon sama sëriñ rek ma jox ko paquet suukar ak potu tàndarma rek mu ne ma bul woorati rek nga bàyyi woor mu ne ah waaw sëñ bi ma ko wax waaw sëñ bi li mu wax ak li yàlla wax lu gën a dëgër kenn du tontu sëñ bi li mu wax ak li yàlla wax sëñ bi li mu wax ak li yonent bi wax sëñ beeg saxaaba yi al ilmu qaala allah qaala rasul qaala saxaaba li la sëriñ bi wax nee na lii mooy diine mbokk yi na leer ci ñun haadihi hiya al masala lii mooy masala moo xam ne awla moo gën a yey ci masala yépp wa hiya al asaas lii mooy fondement gis nga lii bu dëgëree ci yow lu tegu dem waaye lii bu oyofee lu tegu bumaxu daanu ci suuf bu alxuraan leeree ci yow sunna leer ci yow mooy waxu yonent bi waxu saxaaba yi leer ci yow lu ñëw nga mun koo ràññee waaw dootoo sëlma jëmalu kaw yeewu fajar ñu yee la nga wàcc lal bi dugg ci toilette bi sëlmu di jëmale kaw kuy sëlmu fu mu war a wàcc kuy sëlmu fu mu war a wàcc moom nag dafay sëlmu jëmale kaw naan nii tànk ndox mi naan nii di jëmale kaw waaw loolu mooy nga jël wax joo xam ne du waxu yàlla du waxu yonent du waxu saxaaba yi dangaa sëlmu jëmale kaw yàlla na yàlla dimbali yàlla na yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu lii mooy dëgg mu wërsëgal ñu téye ko yàlla na yàlla woon caaxaan mu wërsëgal ñu ñu xam ne lii caaxaan la mu wërsëgal ñu ñu sori ko mbokk yi lii ngeen dégg mooy asaas mooy fondement mooy pied bi taalimi lii nii ah bi taallumi wa taalim lii mooy jàng moom lañ war a jàngale lii lañ war a jàng lii lañ war a jàngale wa daawatu ilayhi lii lañ war a woo nit ñi jëme leen ci dañu war a jàng mooy yàlla nee na yonent bi nee na li ñu war a jàngale mooy xam yàlla xam yonent bi xam diine lislaam bil adillati ay tegtal yu leer ay xëy rek daal ne gis naa yàlla xëy rek ne man yàlla laa commencé waaw yàlla du morom président de la république sax boo ko buggee gis da nga wax lu set waxuma la xanaa ci télé wala rajo nga dégg ko muy wax waaye nga toog ak moom nii waxuma la ak yàlla waxuma la ak yonent nan delloo suñu xel delloo si leen seen xel bu leen nax seen bopp bu leen gis ma riirandoo gii riir nekk ci mbedd yi di riir rek nit ñi di yuuxu di dof doflu takki seeni sagar di kenn xamul looy nuru di dof doflu rek ngeen dem dugg ci bu ci dugg boo dee da ngay dem safara ndax islam bi diine yàlla du diine du caaxaan lu leer la yàlla wax lu nef lang la yàlla wax caaxaan yi ngeen gis fii ak xumb-xumb yi yàpp yeeg boisson yi ak pom yi bu leen tiitalee ba ngeen dof dof lu ngeen dugg ci loolu su ngeen dee dem safara loolu lekkoon fi yomal xiyaam di nga ko wàcc biir safara est-ce que diine dafa war a nekk ay xumb-xumb ay caaxaan déedéet nee na la diine bil adillati ci ay tegtal yu leer lan mooy tegtal yi qaala allah qaala rasul qaala saxaaba li mooy tegtal yi yabda'u bil aqida li annaha hiya al aslu wa hiya al asaas diine day tàmbale ci pas-pas li ngay fas muy lu leer nañ ne weng ni midi nga gëm yàlla boo xam ne doo ko sikki sàkka ci kenn wala leen yàlla kese kese danga koy jàng nga xam mooy kan jàngeen qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yuulat walam yakun lahu kufuwan ahad sa nit ñi ñoo ñëwoon ci yonent bi ne ko sif lanaa rabbuka allazi tad'una bihi melal nu sa borom bi ñuy woonaan ñu yàlla yàlla yàlla yàlla moomu nu mu mel ndax moom ngelaw la nu xeeñ ci ko wala xeer la ñu làmb ko bu soree ñu yuuxu woo ko bu jegee ñu dee ko ndànk bax ñu xam ko saar bi daal di wàcc qul huwa allahu ahad nee leen yow muhammad yàlla kenn la allahu akbar kon yàlla du ñaar du ñett du ñeent waaw kenn la allahu ahad kenn la lam yalid walam yulad jurul kenn kenn jurul te moom yàlla moom allahu samad ñëpp seen mbir moom lañ ko jox moo koy réglé moom mbiram kenn du ko réglé moo koy réglé boppam jurul kenn kenn jurul moom yàlla amul dendandoo amul soxna yow nag sa yàlla dafa am soxna dafa am jabar am ay doom yemul sax ci benn jabar am na ay njaganjaay jabar léeg-léeg nga dégg benn sëriñ bu dee ñu ne saal bi yëpp de dugg nga ci saal bi ñu ne waaw ñu ne jigéen ñi fa nekkoon muuru yëpp ay soxnaam lañu ñaata lañ ñu ne am ñu ne xamuñu ko. ah fekk saal bi kat mu ngi toll ne esca ñu ne jigéen ñi muuru woon foofu yëpp ay soxnaam lañ ñaata lañ kenn ku mënu koo compter. léeg nga de kenn ne man de bi ma ko gëjee bi ma gëjee xam ñaata la mi ngi woon ak 40. ay na dalil buy wane ne kooku war na am loolu ci jabar jullit ñaata la ko yàlla may ñeent fankihu gis nga ndigal ñëw na takk leen amrun min allah yàlla joxe ndigal ma taaba lakum min annisa masna wa sulaasa wa rubaa fa in xiftum alla taadilu fa waahida da ngeen takk benn bu ngeen ragalee ne munu leen a maandu yàlla nee na ngeen takk benn su ngeen xamee di ngeen mën a maandu ngeen jël ñaar wala ñett wala ñeent jeex na foofu la leen yàlla yem lool waaw waaye nga ñëw def lu la neex suñu waxee nga naan am naa dalilam ana dalil bi li sa dalil bàyyi julli ñu ne danga bàyyi julli nga ne am naa dalil li sa dalil bàyyi woor ñu ne nga ne li tax dama màkk nga ne ah am naa dalil luy sa dalil mbokk yi pas-pas mooy aqida tawxid loolu la jullit war a njëkk jàng tawxid su jullit amul tawxid alkuna jullit bu amul tawxid alkuna aduna alkuna alaxira day torox ndax dootoo jaamu yàlla ci musiba rek ngay nekk waaw loolu mooy al matlub li ñuy sàkku ci nit dalil nag mën a nekk looy dégg mën a nekk xel bu fekkee bi ngay dégg la maa sabata bil wahyi wa huwa al kitaabu wa sunna dalil bi ñu dégg ban dalil la ban dalil la bi ñuy dégg mooy alquran ak sunna boobu mooy dalil bi ndax boobu dañ koy wax nga dégg ko ñu jàngal la ko nga xam ko nga dégg ñu wax ko muy alquran ak sunna am na beneen dalil mooy aqliya xel boobu maa sabata bin nazri wa taamul boobu noo koy xamee dalil bi nekk sa xel bi nga xam ne dangaa xalaat rek xam ne li dëgg la mooy dangaa xool wala nga xalaat ak taamul wala nga settantal nga dégg nga xool asamaan xool suuf xool jant bi xool weer wi xool biddéew yi am na ko ko defar am na ko ko defar lii lan la dafa am ko ko defar wala amul ko ko defar est-ce que xel nangu na nga ñëw sa biir néeg rek nga fekk mu tegu rek nga ne ndeysaan ku fi indi li ñu ne moo fi indi boppam xel nangu na loolu nga xool asamaanu yàlla bii xool suuf si xool géej xool jant xool weer xool biddéew xool lépp ne lii nag ñu ne la moo fi indi boppam loolu xel nanguwu ko xel nanguwu ko wala nangu na ko nanguwu ko fam ko fi indi ko fi indi mooy kan allah jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu allahu akbar kooko defar li ngi kon dangay am adilla adilla ñaar la bi ñuy dégg ak bi ñuy gis bi ñuy dégg ban la alquran ak sunna beneen bi lan la mooy xel xel ak settantal وقد أكثر الله عز وجل من ذكر هذا النوع في كتابه فكم من آية قال فيها ومن آياته دليل يوي nga xamne dañ leen di dégg ak bari ci alquran bari na lu yalla waxu min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan ومن آياته خلق الليل والنهار ومن آياته خلق الشمس والقمر ومن آيات أكبري yooyu yëpp lu mu lay woon mooy yàlla moo ko def ay kéemtaan la yàlla la ko wax kon bàyyi leen xel loolu bu baax a baax a baax ngeen góor-góorlu xam seen diine ngeen góor-góorlu xam seen boroom xam seen yonent xam seen diine waaye ci ay tegtal amma maarifatu nabi sallallahu alayhi wa sallam bil adilla assamiya fa misal qawluhu taala muhammad rasulillah wallazina maahu wa muhammad wa ma muhammadun illa rasulun qad xalat min qablihi rusul yépp ci adilla yu ñuy dégg yuy wane ne yàlla nee na muhammad sama ndaw la maa ko tànn maa ko yónni bu fekkee al adilla al aqliya la dalil yi xel bin nasri da ngay xool wa taamuli nga settantal fii ma ataa bihi min al ayat al bayinat ci la la yàlla indil ci ay lay yu leer allati azamuha kitaabullahi azza wa jal yi gën a rëy ci dalil yi la yàlla indil muy téere yàlla bi subhanahu wa taala muy alquranul karim waaw wa jaala almustamil ala al axbaar alsaadiqa annaafia buñ jàngee alquran danañ gis yàlla def ci ay xabaar ay nettali ay histoire diggante déppi jinne yi ak yàlla aadama yonent yi suuf si asamaan weer biddéew mbokk yooyu yëpp ay adilla la yuy wane wal ahkaam al muslih ak ay atte yuy defar al aadila yu maandu wala ku rey nit nañ ko rey kenn du rey nit ku dagg ñu dagg ku sàcc ñu dagg sa loxo pommiteer bu nëpp ci biir saaku génne rek wala mu yàq pommiteer yi bëñ bi metti ci biir gémmiñ tëwér bëdd rek kon nag mbokk jullit yi yàllaay ki wax ku dëgg yàlla mooy sunu boroom moo nu wax dëgg dañ leen góorgóorlu ñu jàpp ci li nu yàlla wax yàlla na nu yàlla may ñu fekkewaat dars bii di ñëw li ci jub ci yàlla la bàyyeekoo li ci dëng ci ñun la assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu